yéen xam-xam ñor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal boroom xam-xam yi fii ci sunugal 24 point net kon nag tey seen gana ngoog ginnaaw ba mu jaaree ci diwaanu Mauritanie ci diwaanu Mali ci diwaanu rawatina ci diwaanu Guinée Bissau waa Sénégal ne ko Thierno Souleymane Diallo dalal ak jàmm ku ko xamul tam dégg nga ko ci xam-xamam bu wóor gi lee kuy jëflante di ju wax ma ne ko Thierno Souleymane Diallo loo xam ci ko amee diabète hémorroïde ndoxum siti mu ne kooku nu ma jégg rek xam ne loolu man aw ma ci xam-xam ma ne ko ah Thierno ban xam-xam nga toogaale mu ne képp koo xam ne dañ laa làkk jant bi maanaam ñu na dinaa la jox ci délai 10 jours 10 ko defee naa ko Euh, nga koy garanti à <laughs> waaye wa waaye nañuy jëf waaye tey bàyyi wax mu ne ma yemuma foofu de yow mi nga xam ne da bëgg borom kër waaye tamit ci borom kër yu baax yi rawatina yow mi nga xam da bëgg ubbeeku te mu yitteel la wala rawatina nga bëgg tukki te mu tëla Thierno Souleymane Diallo nee na ubbil ubbil naa leen samay buntu adresse bi benn rek la fii ci diwaanu Dakar Ouest Foire numéro téléphone bi 77 011 19 45 77 011 19 45 wala beneen numéro bi 76 257 00 60 76 257 00 60 daan naa la daan naa la daal wóolu ku daan daal da ngay féete kaw.